ami site internet dal leen ak jàmm seen chaîne préférée Moride Sadikh TV ab xibaar ñu daal koy doore ci triste nouvelle bi nga xam ne rek kon dañ lay dal ci kaw oustaz Tayib Socé moom lee ko nekk ab célèbre prêcheur foofe nag ca E-Media moom nag moo ñàkk waajuram bu jigéen ni ki démb di yow ci turu Adja Soula fay foofe nag ca kër Madiabel ay atam toll woon ci téeméer ak ñaar fukki at moom lee dal moo ñàkk bàkkanam ni ki démb sax lañ ko jébbal suñu borom foofe nag ca kër Madiabel buñ sukkandikoo suñu ay confrère kon ñoom ñi de ñoo ngay xam ne ni boobu leen jàll nag ñu ngi koy amal foofee uh, ca kër Madiabel mu oustaz Taïb Socé sa ñoo ngay xam ne ni kon uh, niki suba ci talaata gi dina ñibbisiwaat foofee ca Dakar di ko ñaanal nag yàlla yërëm ko te xaree ko àjjana fii daw si ba tey li ci mbirum xibaar di ñeel nag campagne électorale bi lee uh, foofee nag ca diwaanu Mbour niki démb ci caravane bi nga xamante ni kon waa Pastef fa ñu ko doon amal niki démb rek kon ñu daal gis ne dañu leen fa daal di attaqué bu Diayte nekk coordinateur départemental bu Pastef daal mu ngay xam ne ni rek kon na daal di déposé ab plainte gannaaw rek bi mu xam ne ni yoo xam ne rek kon dañ plainte dina ko déposé niki tey jile ci noonu tamit niki démb daal di woon nañu amal jàpp point de presse ca mairie bu Sandiara doon nakaru seen caravane bu Pastef mi nga xam ne rek kon dañ ko attaqué niki bu foofee ca diwaanu Mbour ba tax na kon moom mi rek dañ ne xam ne ni niki tey ci lundi bi rek dina déposer ab plainte jëm nag ci mbir moomee